Fatou Warkha Samb ñu ngi lay nuyu maa ngi lay far évidemment. yow ngay militante euh, ngir nag ñu respecter ak ak yelleef jigéen ñeek ndaw ñi bokk tamit euh, ci ñu sos waaye doon vis coordonnatrice collectif dafa doy euh, tey ñu gis bu yàggul mu daal di am benn boutique de droit bi nga xam ne nee nañu recensé nañu ci diwaanu pikin lu toll ci mille huit cent quatre cas violence basée sur le genre ñu bëggoon a xam justement violence yooyu le yan genre. genre la. waaw maa lay nuyu Elisabeth di nuyu ñu ñuy déglu ñëpp di euh, am contente di revenir ci seen hmm. di xamal leen ni rek euh, fan yi ñu génn collectif dafa doy boobu ci boppam ci ànd ak ay partenaires am daal di def benn projet bu mu doon lancé bi nga xam ne li ci ko tax a jóglu mooy jéem a sensibiliser mobiliser la communauté pour que ñoom ñëpp ñu taxaw. pour lutter contre les violences faites aux femmes donc ci atelier yooyu ñu doon def de formation ci lek ki nga xam ne ni mooy coordonnatrice su boutique ñëwoon di def présentation sur la prise en juridique moom ci la xam leen ni moom ci boutique de droit wam bi nga xam ni moom lay gérer ci année mille vingt et un bi rek daal na ci recensé lu tolloog mille huit cent et quelques cas de viol mhm. violence basée sur le genre et parmi ces mille huit cent là Euh, les mille six cent et donc si violence yooyu nag dañ ciy seetlu violence euh, conjugale maanaam méttital yi ñuy méttital jigéen ñi ci seen kër sëykaay dinañ ci ki ay violence physique dinañ tamit nemmeeku li nga xam ne nii mooy ay viol donc loolu la ki nga xam ni moo fa teewaloon AGS nekk suñu formatrice waxoon ci rencontre boobu. Mhm, ñu bëggoon a xam lu tax Pikine. waaw li tax Pikine mooy li ma wax sànq parce que dafa tombé ni moom mi ñëwoon def. Euh, formation bi Pikine la jóge mm donc xëy na keneen bu jóge woon parcelle wala mu jóge Euh, Kédougou wala Bakel su ñëwee cas bi mu yi mu liggéey lay wax parce que dafa ñëw pour former ñu donc ci chiffre yi nga xam ne jot na ko moom en tant que coordonnatrice de boutique mhm. loolu rek la mën a wax donc looloo tax xëy na mu tombee mu nekk Pikine mais du woon lenn loo xam ne nii dañu woon dañu xool tey ci li nekk Pikine des autres départements ou régions. d'accord kon du échantillonnage du dara euh, d'accord euh, wax lu mu xam rek la. wax lu mu xam la ci période bi mu koy wax. parce que dañu doon lancer suñu projet pour ñu former ñu suñuy membre association collectif dafa doy pour que ñu gën a mën a xam seen ak yelleef parce que jàpp nañ il faut que ñu descendre sur le terrain il faut ñu sensibiliser il faut que ñu wax askan wi ndaxte xamal leen mën na prévenir euh, violence yi ñuy seetlu ci réew mi. et justement Fatou Pikine euh, tey euh, lan nga foog ne mooy facteur yi wane chiffres yi. waaw xam nga Pikine dañuy wax ni moo nekk le Sénégal en miniature parce que hmm. seetlu Euh, parti wu réew la boo xam ni euh, ñit ñi fa ñëpp bari nañ trop euh, seetlu nañu yaa lépp nga fa et que am na lu ñu bi dafa présent te et que difficulté itam bari na fa xëy na yooyu noonu moo tax violence bi tamit dafay gën di bëri la promiscuité dëkkuwaay wi ak ñàkk gi ak métit yi ñuy teg jigéen ñi ak ñàkk jàng gi ñàkk lépp lépp lépp loo xam ne nii am ñàkk xam gi aussi ignorance bi loolu yooyu yëpp dina tax ñu mën a xam ni Euh, dina mën a tax daal euh, violence bëri ci gox boobu. justement ndax soxna yi ñoo ngi gën di xam ñoom seen àq ak seen yelleef euh, ba mu jaxal leen violence yi muy gën di wàññeeku. waaw ah, en tout cas ñun ñu ngi def lu ñu mën en tant qu'organisation. AGS aussi mu ngi def lu mu mën ndax teg na fa boutique de droit bu nga xam ni képp ku am jafe-jafe wala torof-torof boo fa ñëwee dinañ la déglu xelal la lépp loo xam ne ndimbal la ak accompagnement bu mu yitteeloo ñu daal la ci gunge. donc ñun li ñu mën ci sensibiliser ci ku ñu woo ñu wax la fi nga war a jaar ci déglu ci orienter ci prévenir aussi ci conseil ñu ngi koy def tout en espérant que rek jigéen ñi war nañ ci gën a bàyyi xel pour que ñu gën a mën a xam lan mooy seen àq ak yelleef ndaxte seetlu nañ ni ñàkk xam gi itam dinay favoriser violence parce que des fois du ñu xam fu ñu jëm du xam ndax lii nit ki war na leen ko def am déet loolu lépp daal tax na ba ñun jàpp nañ ni bu ñu gënee xam loolu mën na am impact si Euh, wàññi wàññi violence yi ci réew mi. te lan nga jàpp ne mooy waral violence yi di gën a bëri jëm ci euh, basé sur le genre je veux dire. xam nga yooyu day bëri parce que doo bon tey Covid bi ci Covid bu lañ jógee mën nañ ni chiffres yi ni mu ëppee yu deux mille vingt et yu deux mille vingt yi mën nañ jàpp ni am c'est parce que Covid bi am na ci impact. Hmm. mën nañ jàpp parce que euh, ak yeneen ak yeneen ak doo mën a xam mais daal di xam ne Euh, violence daal une réalité la ci ci suñu réew. Mhm. sànq yaa ngi koy wax euh, sensibilisation mais tey dafa am nu ñu mooñaalee surtout si suñuy culture ak euh, société am jigéen nu mu war a toogee nu mu war a jëfee ak yooyu ndax tey yooyu bloqué wul justement combat yéen ñi militantes yi ngir gën a xamal jigéen ñi seen ak ak seen yelleef. non loolu tey bloqué du ma wax ni daf ko bloqué mais dinaa ni ci loolu la ñu identifier ba tax xëy na ñun ñu ni nañu jéem a def suñu part dans la chose parce que jàpp nañ ni dañu am suñu société bu xam ni dafa am ci yenn yoo xam ni dañu ay valeur la mhm. yoo xam ni àndul ak luy jëmale kanam suñu àndul en tout cas ak luy jëmale kanam jigéen ñi bokk na itam ci nga xam ni mën nañ ni mooy encourager lii di violence te mhm. parmi ci valeur yooyu noonu wala pseudo valeur yi ñu koy tuddee mhm. man dama ci boole souvent sutura bi par exemple parce que sutura bi ci kiñ koy gën a xaar si jigéen ki la te souvent ci liñ koy demandé mu am sutura mooy ci bu sa jëkkër bi dóor bu la sa jëkkër di xas ci bu la sa jëkkër joxul dépense bu jëkkër deful watu waayam ci sa néegu sëy boo fa amee ay métti bi nga xam ne nit rek a ko teg si neexaayu bakkanam la la ko tegee yooyu ñëpp da nga war a toog muñ am sutura waroo dem waroo fay waroo waroo di jébaane sa jëkkër ainsi de suite donc sutura googu jigéen ñi lañ koy laaj te jàpp nañ ni loolu du jëmale kanam droit wu jigéen mhm. donc te boobu am na gaa ay pàcc yu baax si si valeur comme parce que valeur mais li muy naxasaay ak yel jigéen ñi moo ëpp. donc loolu nag exemple la si yeneen exemple pratique socioculturelle bu mën a mën a citer juste pour wax ni la rek ni si société bi ñu nekk société bu ñu naan la dañ ko def si société patriarcale c'est-à-dire góor ñi ñëw ci ëpp gëdd góor ñi ñëw ëpp avantage góor ñi ñëw ëpp sécurité que jigéen ñi donc mhm. ñu loolu la ñu xam moo tax ñu jëf ñu ni ñu dinañu sensibiliser dinañu weccooy xalaat dina ñu a xool naka la ñu mën a def ba mën a améliorer croyance yooyu bu ñu mën a améliorer dogme yooyu parce que loolu xëy na bu ñu ko améliorer mën am njeexital tamit ci cas de violence ñuy noté. mu amaat euh, beneen loi ngir ñu gën a teengal euh, daan yi ñuy daan ci wàllum viol tey euh, gannaaw ñaari at muy deux mille vingt bañ ko promulgué ban seetlu ngeen def ci mim réew. waaw seetlu nañ ci d'après chiffres yi ñu jot ñu ni depuis boobu am na lu toll si quatre cent cas de viol yoo xam ni egg na ci kanamu yoon mais si quatre cent yooyu fukk ak ñeent rek maanaam quatorze ñoo ci nekk si devant le juge nekk vraiment si procédure juste pour wane ni am na décalage bu rëy ndax si trois cent yeneen yëpp ñu ngi toog di xaar kon donc loolu dafay wane ni am bi ñuy ut ñun loi bi bëggoon nañ que ni képp koo xam ne def nga jëf jooju ba ñu ni daf nga jëf jooju noonu ñu mën nga daan ci anam yu mais gis nañu tey pratique bi yéex na trop xaar bi bari na trop te di nga gis ñenn ñoo xam ne dinañu sax man li diw ba ma saakoo ba ma porté ko plainte ci ëllëg dañ ko jox liberté provisoire ok jox nit liberté provisoire ne pas dire que yoon nekkul di def liggéeyam yoon mu ngi def liggéeyam mais dafa fekk bu ñu jógee ci délit dem ci crime procédure bi dafay laaj encore temps bu bëri matuwaay day gën a bëri juge bi day gën a am temps gën am temps donc loolu yëpp nag day tax affaire yi gën a yéex loolu nag xam nañ ko moo tax gars yi sax dañu ni le temps de la justice n'est pas le temps de l'homme donc du ñu justice justice bi ne gaaw gaaw gaaw non le juge dafa war a ko mën a defee mais li mooy état pour mu gën a jël matuwaay yi ci gën a war créer conditions yi gën a baax pour que affaire bi gën a gën a gaaw pour que képp koo xam ne nii defati nga li ni mel ñu mën la daan ci daan yi ñu nga war a tëdd mais ci anam boo xam ni victime bi wala survivante bi bu ci jëlee lorukaay. yaa ngi koy wax quatre cent et quelque euh, ndax néewul ci diiru ñaari at ndax chiffres yi reflété na li am ci mim ah, lool ah loolu loolu da lañu gi dégg waaye nag mën na am ni am na ay cas yoo xam ne ni duñ ko dénoncé parce que bu ñu nee ci Sénégal lañ ne ak sutura bi encore nëpp nëppal bi ak ñàkk mën wax bi parce que suñu réew dafa am ñoo xam ni ñoo war a mën a nekk victime am ñoo xam ni waruñu mën a nekk victime de donc ñun ci suñu société ak ci nit ñi ñuy xalaatee doon la am ay nit ñi nga xam ne bu ñu jugee ni dañ maa saak ok mën naa nekk dinañ leen defal bénéfice du mais am na si nit ñoo xam ne bu ñu jugee ni dañ maa saak ala kulli aal mënul nekk ndaxte lan lam soloon ndaxte lan na mu woowee bët ndaxte lan fa muy dem ndaxte lan la muy liggéey sax mooy tax ñu jàpp ni ñëw egg ci moom alors ko yooyu noonu yëpp ñu filim amul benn njeexital ci saako bu ko mën a saak ndax bu ñu delloo si ni ñuy définir viol mooy rek képp koo saako te neexu ko donc képp koo sàkku kooku waxuñu ci nit ki foog mu mel nii mel nii ba nga mën ko sàkku mu bañ koo neex wala nit ki foog mu mel nii mel ni ba nga mën ko dañ ñu rek képp koo sàkku donc ñëpp ngi am warta am ay victimes ñi may tuddee victime parfaite ak ay victime imparfaite donc loolu nag tax tey bu la yàlla na ko xëy na bokk si ñi nga xam ni ah, tey boo jugee ni dañ la sàkku ci anam yi ñu la sàkkoo ak ci condition yi ñu la sàkkoo amu ci lenn loo xam ne nit ñi mën nañ koo gis ba jox crédit si li ngay wax souvent da ngay tiit wala nga ragal wala nga bañ am ay moyens pour faire valoir la justice donc loolu dinañ mën a tax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tudduma ko dinañ tax ba souvent li am ak li ñuy yóbbu ci yoonu kanam yoon du benn du doon benn. tey jii euh, ci ragal googu leen ndax foogoon ne euh, jot na ñu gën a yaatal euh, naam boutique de droit yi ñoo ngi ci ñoo ngi ci yenn diwaan yi en tant que militant tey lan nga ciy ñaax justement pour jigéen yépp nekk ci même pied d'égalité ci wàllum information yooyu la. waaw ñaax. liggéey bu am ay bu mucc ay mm. mais xam nañ ni bu ñu nee ñoom huit boutique lañ am juróom-ñett si Sénégal gi yëpp di nga gis ni am na doolu doyul parce que tey bu doon suñu sago fépp fu Sénégal nekk fépp sénégalais nekk ci wetam ga mu nekk waxatuma sax par département mais par commune. Mm. par espace boo xam ne am na tant de personnes rek. ñu war fa mën a teg benn de droit boo xam ne jigéen bu amati njaaxare dina fa mën a def mm-hmm. kon tey bu ñoom bu ñu amee huit ñun ñëpp xam nañ ñu doy mais ñoom ñu def lépp lu ñu mën a assister. Mhm. kon ñun en tant militante état la ñuy waxal pour mu créer ñu loolu nga xam ni yàgg koo dig muy ay centre de prise en charge inclusive centre yi nga xam ne ni dinañ ci mën a def ba jigéen ñëpp fépp fu ñu mun a nekk ci Sénégal képp ku ci nekk victime de wala de violence conjugale di nga fa mën a dem ci ab diir ñu toppatoo la déglu la faj la bu ko waree utal la avocat ba yoon mën a def liggéeyam. Mhm. loolu état rek moo ko mën. ñun société civile bi comme AGS ak ñeneen ñi ngi def ñu mën ci déglu ñu ngi def lu ñu mën ci accompagner ñu ngi def ñu mën ci taxaw mais li war dëgg ba nga xam ne nii man mii di war xam saa ma koo xam ne victime de violence woowee wax ma métitam ma mën ni ko ah demal bërëb sàngam le temps que ñuy xool dina loolu état rek moo ko mën donc dañ ko ci ñaaxaat yàgg na koy digge mais gisaguñ ko te njot nañ wala ñu ngi yaakaar ni xëy na balaa deux mille vingt deux bii ñu dugg nii génn dinañ mën a am loolu am ko ci Sénégal yëpp ba fépp fu nit ne nga mën a am espace ak ay nit yoo xam ne taxaw nañ fi terme pour mën la taxaw si boo amee ay difficultés. Fatou Warkha Samb militante pour le respect des droits des femmes et des enfants ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup.